jërëjëf euh, nga may ma ma sant rek euh, monsieur Robitaille mi nekk sama wet ak euh, monsieur Dieng respectivement directeur général GCO ak PCA GCO njeexital bi mu am mooy xam nga matelas orthopédique dañoo defe ni woon rek maanaam ki jàng ba génn ba am maanaam sa gafaka diis yow yaa ci war a tëdd waaye ñun fi mu ne nii bëgg nañu bëgg nañu incha allah balaa déwén Thiès matelas éponge dootu fi am étudiants yi yëpp di tëdd ci matelas orthopédique loolu mooy sunu objectif. Euh, matelas orthopédique yi SAR joxoon nañu ci ñi ngi ko denc dañ doon xaar rek am lu ko mottali pour ñëpp am matelas orthopédique euh, ñun nag loolu mooy sunu objectif étudiants yi lu ñu leen di teg dañ koy natt ci sunu bopp natt ko ci sunu njaboot ba pare soog leen koo teg parce que loolu defe naa ni euh, nit ki moom boo ko dee defee ni sa bopp. di ko teg li nga teg seen njaboot di ko sant li nga sant seen njaboot defe naa di ngeen mën a déggoo loolu daal mooy mbir mi. label étudiant thiessois mooy dañoo bëgg a won àddina bi euh, lan mooy étudiant modèle étudiant modèle mooy étudiant bi nga xamante ne bii royukaay lay doon. étudiants yi xam nga daaw man bi ma fi ñëwee def naa fi at ak genn wàll jëm ñaari at at mu njëkk mi dañoo décréter ni année bi année sans grève lay dem année bi dem na ba jeex kenn gréwul kenn yëngatuwul léegi étudiant label bi mooy wane ni comme ni ko sunu livre bële maanaam téere bële waxee ni en plein cœur de toute difficulté se trouve des possibilités une possibilité Albert Einstein moo ko wax ni ñu ni là où il des problèmes fu problème am rek solution am na fa pour pour pour résoudre ko léegi nag solution boobu ñun moom la ñuy seet bis bu ne problème fu mu am maanaam saafara nga ca ga pour pour pour fajtal ko yonent bi wax na ko sax ku ci nekk feebar bu am ci bërëb garab ga koy faj ma ngi ca wet ga donc ñun loolu lañ gëm à Thiès étudiants yi nag du ñu étudiants yoo xamante ni dañuy xëy rek eh, rek di def lu neex mais étudiants yi dañuy ñëw ni problème kat am na directeur nan la ñuy def ba saafara ko ñuy waxtaan di diisoo ko mbaloo di wax ku nekk di génnee sa xam-xam ba ñu trouver ay solution maanaam ay saafara ci mbir moomu. loolu la ñu bëgg woon ni étudiant wax dëgg yàlla comme jàng ko tax a jóge këram. mu wàcc papaam wàcc yaayam wàcc eh, ak njabootam li ko jig mooy jàng réussir génn dem yor ak njabootam léegi nag li fi dox ci diggante bi am na ñoo xamante ni dañoo doon ay étudiants yoo xamante ni bii dañuy ñëw ci biir étudiants yi eh, maanaam ce qu'on appelle nous les étudiants professionnels du ñu duñu ñu duñu sëf te ku sëf ñu daaneel sëf-sëf loolu lañu ni étudiants Thiès waa dinañ wane ni ñoom du ñu poser benn condition boo xamee du condition pédagogique la condition sociale boo xamante ni bii euh, du jëmale seenu njàng ak seenu nekkin ci université bi loolu nag lañ leen taatane tàggat leen ci waxtaan ceeg ñoom ni leen nañu jël weneen yoon woo xamante ni bii ci la ñuy laaje sunuy wareef ak sunuy yelleef yelleef ak wareef mën nga koo laaj te doo yàqal kenn doo yàq doo doo doo yàq li nga xamante ni bii moom lañ la euh, moom nga am parce que li ma ci gën a jàpp mooy étudiants yi ñoom ñoo koy waxal seen bopp ñu ni du ñu yàq loo xamante ni bi bu ëllëgee dañuy laaj ku leen ko defaraatal boo gisee fii xam nga fii defe naa ni yàq ko yomb na li fi am lépp gisoo fii dara dara dara aw xeer wala xoos-xoos boo xamante ni bi am na ci eh, biir université bi étudiants yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp du ñu yàq loo xamante ni bu ëllëgee dañuy laaj ku leen ko defaral loolu nag euh, defe naa ñëpp war nañ cee roy à tous. Moi, c'est Babacar Mbaye. Je suis le vice-président de la conférence. Après, je le président de l'amicale des étudiants de la sciences et des waaw don bi tam dañ koy lu di kontaan parce que étudiant moom ku ko jàppale rek yaakaar naa ne sa boobu nga jàppale te Université Thiès cette année jot na ay étudiants yu bëri yoo xamante ni ils avaient des difficultés pour am logement ils avaient des pour am fu ñu tëdd je pense que partenariat bi nga xamante ni tiré nañ ko ak GCO qui est le groupe euh, côte euh, côte euh, opérationnel partenariat bi nga xamante ni directeur du CROUS dox na ko di si kontaan di si di ko rafetlu te ñaan aussi itam partenariat partenariat bi tam mu bañ am fii mu gën a law nga xamante ni ëllëg si biir tam mën nañ jot yeneen laa yi nga xamante ni mën na nekk ay ay 2000 laa yoo xamante ni étudiants yi ñëw tam dina si mën a profité bu baax. benn jafe-jafe waaw rek na benn jafe-jafe. parce que mën naa ki nga xamante ni dafay wut fu mu tëdd nga jox ko mat matelas am nga loo réglé même si lépp itam mën na ni euh, réglé wuñ ko parce que problème moom mënoo xëy rek réglé problème yëpp da ngay def par pa di pas nit ñi di gis tam ñu xam ni li ngay def tam euh, am na njëriñ bu baax tam si si si si étudiants yi di remercier encore une fois directeur de course bi nga xamante ni moom mu ngi dox jéego yooyu noonu pour prôner aussi ce qu'on appelle le label de l'étudiant thiessois te loolu étudiants yi ñu seen bopp bu baax. Bon, bonsoir à tous. Je, je suis Benoît Robitaille, le directeur général de la société Grande Côte Opération. Euh, nous sommes vraiment honorés d'avoir été invités à participer à, à cet événement euh, qui symbolise le, une étape dans la croissance de tout ce centre euh, de, de, support aux étudiants euh, sous l'invitation euh, de M. le directeur Le Cruz, que nous remercions chaleureusement. Euh, nous tenons à préciser que lorsque nous avons rencontré le nous avons été séduits par l'ambition et la mission qu'il s'était donnée. Et lorsqu'on nous a demandé si nous étions disponibles pour accompagner euh, cette mission et les étudiants, nous avons répondu oui. Et aujourd'hui, un peu, c'est l'aboutissement de cette première étape-là. Euh, un grand merci à euh, Monsieur le directeur de nous avoir invités et euh, c'est vraiment une grande fierté pour nous de participer euh, au développement de cet environnement-là qui est absolument magnifique. Alors euh, bravo à tous. La, oh, la, la, contribution de Grande Côte Opération à la demande de Monsieur le directeur et de ses équipes était de fournir matelas orthopédiques pour les étudiants pour leur permettre d'avoir des conditions de, vie qui étaient plus adaptées à un cadre propice pour les études. Euh, on va, 500 personnes vont pouvoir dorénavant euh, être dans des bonnes conditions. Euh, alors, c'est un peu la contribution de GCO. est Nous sommes toujours ouverts à poursuivre des collaborations. Nous sommes très sollicités, mais l'axe euh, universitaire fait partie des valeurs très importantes de GCO. à savoir que beaucoup de nos employés sont issus des grandes universités de tiers, que ce soit la Polytechnique, l'école d'agriculture, enfin, toutes les écoles d'ici. On a plusieurs de nos employés euh, qui sont issus de ces écoles-là. Donc, nous avons un penchant, évidemment, euh, naturel à vouloir continuer à supporter ce développement-là.